ذا العزيز ثلاثي أطيب بإيستي إذا يقال لدول التكريم حيا الله أجبرت لي إماك الجبار دون لقم كل انقضاء بلاسي لاخترت يا الله أجبرت لي إماك الجبار جبار دون الإنقاذ كل الإداء بنفسي اللي اخترت يا الله كرهتني كل في كبر بلا كل في يا متكبر تل كل يا الله يا غالي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 safi amaani wasit baraa'i ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sant seexul xadim ñaanal seex muhammadul muntaqa mbàkke xalifatul am di taayifati muridiya hafizahu llah wa raa ayadahu llah wa nasara ñaanal ko sëriñ seex jëmb faal xalifatu maam Cheikh Ibrahima Fall mu yàgg fi lool te mu ànd ak wér ak mbooleem njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall waaye ak mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yépp nag ñu nuyu ziar bu baax mbooleem képp koo xam ne yaa ngi bàyyi xel Sénégal 7 ci seen édition spéciale bi nga xam ne ñu ngi ko jaglee waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridina waaye ñu bëgg a waxtaanee maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil Mouridina ànd ko koo xam ni ku yoonu murid yëpp bàyyi xel la di ko ànd ak koo xamante ni ku njabootu Cheikh Ibrahima Fall yëpp bàyyi xel la di Serigne Mamour Ndaw mu Lamp Fall TV ñëpp xam ko ci liggéey Serigne Touba gi ñëpp ràññee ko ci biir kër maam Cheikh Ibrahima Fall mu nekk nit koo xam ne ku ne xam ne weeru koor gi Baye Fall du am jot rawatina jëmmam ji nga xam ni ku ne soxla na ko ci sa plateau waaye ci OFM ak ci mbaaxam ak ci jàpp ndalam mu ni dinaa la ko nangu yow Abdoul Ahad Aw ñëw fa ngir jëmmi Cheikh Ibrahima Fall ndax lépp lu ma waaye woo ci Cheikh Ibrahima Fall dana ko jaayante ngir teew ca loolee nag day wane pas-pasam ak bëggam ak dëggalam ci maam Cheikh Ibrahima Fall lamp Babil na kon sëriñ Mamour loolu ñu bëgg ci lool di la wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Abdoul Ahad aouzu maa balaa'i wa maa amraadi wa buridat tanqaadu li amraadi wa ansiraara xalxa wa rasaaya wa jinna wa saytaan balaay gannaaw bu ñu sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi ñu ngi ñaanal sunu yaakaar Cheikh Mouhamadou Mountakha mu yàgg fi lool te ni di sàkku ci jullit ñëpp ñu ñaanal ko ba ay naalam lépp mu yeggale ko ba sum yeneen naal amiin dañ fekk lépp nag di ko ñaanal baax sunu jàmbaar ji di Serigne Cheikh jëmmuli sunu bunt ci maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan suñu borom mu dolli ko fa yàggal bu baax a baax te dolli ko wér. ba ay naalam lépp mu yeggale ko bu sumb yeneen i naal. Eh, di la ziar bu baax a baax eh, Cheikh Abdoul Ahad mhm. eh, di ziar kilifa ak barab bi. Mhm. di ñaan suñu borom dool leen a taxaw bu baax a baax. amiin ziar mboolem ñi fi nekk ñëpp. fiy liggéey. Mhm. te sunu borom dogal it ñu am cofeel ci suñu jëmm yi. Eh, di wax ne sant nañ yàlla bu baax a baax nag bi ñu woo ci ki nga xam ne. Mm-hmm. saa bu ñu seqee sunu tànk jëmmam rek a tax te mooy Cheikh Ibrahima Fall. di ñaan sunu borom lépp lu ñu fi wax yàlla na dëppoog ngërëmam ak taw feexam. amiin loo xam ne day roogalaat jëm ci ci mm-hmm. te weer wi nga xamante ne bii mooy weeru koor te maam Cheikh Ibrahima Fall sa soo woon ci. Mm-hmm. la ko Serigne tubaa Cheikhul Khadim santoon te mooy togg ay ndogu. la ca nekk lépp ci ngëneel yàlla buñ ci dara ump. amiin te mooy maam Cheikh Ibrahima Fall. jërëjëf sëriñ Mamour ci nuyoo bu nga xam ni ansanta ak maltawar mamta mate na rafet na yal na Serigne Touba defal la tawféex. nga xam ni audition auditeurs yi nga xam ni ñu ngi bàyyi xel Sénégal 7 TV. ku ne xam na ni kër gi jëwriñ ji ak ñi nga xam ne ñoom la jël liggéey bi teg ko seen loxo saa su ne lépp loo xam ne day bégal képp kuy bàyyi xel Sénégal 7 TV dañ ciy taxaw moo tax édition spéciale ñu waxtaane tey Mame Cheikh Ibra Fall ànd ceeg koo xam ne sëñ Mamour Ndaw di ma ko waxee léegi jataay bi ko am ci sa plateau rek da nga sant Sëriñ Touba ndax li muy wax ñëpp bàyyi nañ ko xel li muy wax yoonu murit yëpp bëgg nañ ko ndax lan da koy teg ci ak xam te walaa yaxilu an yafaala fixlan xataa ya'lama hukma Allahi loolu la borom lax dari wax ni lépp lu nit di wax jiital ci ak xam loolu nag loolu la ko ñëpp seedeel wa ma sahidna illa bi alim na nuyu mboolem kilifa yi nekk nag ci télévision bi ndax lii buñ ko mënee am édition spéciale gi ci jàppandal la ko tàmbalee ci suñu jëwriñ sëñ Pape ngañ ziar Souleymane ak mbooleem ñi nga xam ne ñoonu jàppale ba lii man di am ñoom ñëpp ñu nuyu leen ziar leen jox leen seen wàccuwaay ci édition spéciale bi sëñ Mamour tey bu doon tàmbalee waxtaan wi danoo bëgg xam diggante maam Cheikh Ibrahima Fall ak weeru koor Eh, jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad eh, maam Cheikh Ibrahima Fall ak weeru koor. Mm-hmm. laaj la boo xam ne mënees na cee tontu. Mm-hmm. ndax eh, daa fekk fii ngay ne fii nga ñu fekk nii. waaw ñu nekk ci lañ ca Cheikh Ibrahima Fall santoon. Mm-hmm. yaakaar naa ne day su du woon ak jotaay bii waxtu yi dafa may fekk ci yoonu Touba. dëgg la te fii may waxee yow it yaakaar naa ne ñi ma war a àndal dem Touba ñi ngi taxaw di ma xaar. di la xaar wér na. waaye Cheikh Ibrahima Fall nag moo waxoon ne. ku amul lu lenn képp. Mhm. def ko ci barab. Mhm. nee boo fa déggee yuuxu kenn waru la jiitu. tey loolu mooy li ñu fi indi. Euh, maam Cheikh Ibrahima Fall nag. Mhm. bu yàlla dogalee mu ñëw njaareem. ci atum 1915. am ñu ne 1916. bi mu dëkkee Mirina. muy fi ñuy wax Makkata Madinatu Munawara. ndeysaan Cheikh Ibrahima ko ko tuddee woon. ndeysaan doomu njaareem nga. borom barab bi Eh, di pam ngagne jay mo borom borom doomu njaarim la doomu njaarim la ndax juroom mos mm. na ma ko fekk ci soxna fal jeug soxna fal jeug yang mako wax leegi ak mo wa mo mam sadiou fal mo na fal mom ndessane mo benn goudi ma ngi fataliku lolou ndessane kon xam ngeen li xew xam ngeen mm. njaarim mm. ndax maam cerno kanji moy sama moy sama ndeysaan yaakar na kon waw xar nga xam njaarim bu baax dafa quartier bu mak bu mak wallahi bay lay gay bay lay gay aha euh cheikh ibrahima fall nak bi mu duggé thiès ci atum 1900 am atum 1915 am ñu ne 16. Mhm. kër yéeli la wàcc. kër yéeli waaw. Mhm. maa ngi dëkk ci koor gi de. waaw waaye dama laa bëgg a wax ndigal li fi mu ko jotee. fi ko jotee bi mu wàccee kër yéeli. Mhm. mag ñi nee nañ kër maam Cheikh Anta. ngi jàkkaru kër yéeli fara dal. fara dal. booba Cheikh Ibra amagul benn barab njaarim. ndeysaan booba ku tedd kee ñibbi si rek woo ko. woo ko ndax nañ bàyyi xel na sëñ Touba. mi ngi ñëw njaarim ci atum 1912. bàyyi ko jolof jolof parce que 1903 mhm. gannaaw bi tukki jéggi jeexee mhm. ci la dem gannar gànnaar mhm. ba 1907 7 tubaab bi jëlee ko foofu indi ko ci yéen jolof ba 1912 mu jógee ci yéen jolof ñëw njaarim résidence lañ ko téye maanaam moy côté maire bi noonu mam Cheikh Ibrahima Fall nak seigne touba jox ko ndigal ndax kéro bi seigne touba waccé njaarim dal ci résidence la fekk yéeni maneel ñu doro door a fal ndeysaan tubaab yoo ko woolu na ko ku mm-hmm. baax ki mm-hmm. kii ñu fi indi nee mm-hmm. du dëkk ci néegi tabax utal ko néegi sàkket yi li dem kër bàyyi laay gay moo tax njaarim cosaan la la la waaw jaar yéemu loolu fa ne jaar yéemu yéeli dem kër bàyyi laay gay ba mu demee kër bàyyi laay gay bàyyi laay ak yéeli ñu tekki seen i néeg ñoom te sampal ko sëñ bi ci résidence ndeysaan sëñ bi am na fa at lu topp door a dem dëkki kër gu mag kër gu mag al buqaatul mubaarak ndeysaan léegi nag bi nga xam ne nag ñëw na nag daa wooyee ma daa woo mag ñi nag ñëw dëkk. Mhm. bi mu wooyee mag ñi nag pour ñu ñëw dëkk nag ci la daal di woolu Cheikh Ibra Fall. Mhm. fekk Cheikh moom Cees la pare woon pour dëkk parce que daan dànn sëñ bi. daan dànn sëñ bi maam Cheikh bi ñëwee daal di wàcc nag. bi mu wàccee njaarim di dal foofu daal di nag jël ñaari jëwrinam mhm. muy rakkam di Serigne Saliou Fall. maam Saliou ak Cheikh Atoumane Diop di taalibe bu mag di taalibe mag mu ne nañu mu wutal barab. Cheikh Atoumane xool suuf si ñuy wax Mirina muy Madinatu Munawara Cheikh Ibra Fall ko ko tuddee moo ko tuddee mu lese xaar ko da ko fii mat na barab mënees na faa dëkk sëñ Saliou Fall xool fii ñuy wax kër Cheikh te mooy màkk looy looy mu ne ko fii baax na mënees na fee dëkk muy ñaari barab ñaari barab maam Cheikh Ibrahima Fall nag daal di dëkk Mirina kër sëñ Mortala Fall boo demee mu doon kër maam Cheikh Ibrahima Fall penc mi wër ko wër ko sëñ Ablaye Fall ndar dëkkee foofu ak sëñ Assane foofu loolu penc la bi mu fa dëkkee nag wax nañ ne 1900 diggante 1916 dal entre 18 mhm. ci la ko ku tedd ko wolu wolu ci njaarim nako ibra fall mhm. mu ngi ànd ak ku ñu wax bàyyi yaram bay bàyyi yaram bay ko da jotali la ndeysaan nako damay sentu gan mhm. te bëggoon nga gàttandul mako te teralal mako te gungel mako ko ndeysaan fall genn laaj sëñ yaram waa ah, foo tollu toll yaram wax ko mu naa ah, sëñ de weeru kor lay wax moy ganam moy ganam waaw ndeysaan moy ganam Ya. xëy na day fin atta ndeysaan mooy ganam mooy ganam ndeysaan daan ne kon ay ndogu la may togguloo ndeysaan nee na weer wi mhm. ganam la mhm. na naa ko gunge te berndeel ko te berndeel ko daal wax ne kon nañ ci jëm mhm. mooy ay ndogu la may togguloo ndogu la may togguloo waaw ndax weeru koor mooy ganam mooy ganam daal wax ne nag lu am na ko na ko ci def ndeysaan cheikh ba daal di wax ne nag daal ciy diggee daal ne ndog yi ma sëñ Bàmbay togguloo doom ku ma ci jox lu toll ne tànk tànk mm. nag mooy fifteen boo xaaj fifteen boo xaaj ca jamono booba ca jamono booba mm-hmm. Cheikh Rafal nee na ma fàggul la ci loo xam ne dootul yàqu mukk te boo fatum dugal àjjana ci yi waaw loolu moo waral nit ñi xëntewoo di ray ngir joxe ngir nag nag yeeg ganaar yeeg giléem yi boo demoon tey diggante Touba ak Njaaréem ba Baaleen ba Mbàkke da nga gis mm, ganaar yeeg kumte yi Cheikh Rafal wax bool waaw ndeysaan am bool Cheikh Rafal wax ne ndogu yi ma sëñ Bàmbaay ku togguloo kat doom mm-hmm. ku ma ci jox lu toll ni tànk tànk mooy fifteen boobu xaaj boobu xaaj nee na ma fàggul la ci loo xam ne dootul yàqu mukk te boo fàttu mu dugal laa jëna cay ndogu yi daal di koy tàmbali nag di ko togg ci njëriñ ndeysaan tàmbalee woon ko ci fukki ndab ak ñaar mm-hmm. akob super ndeysaan fukki ndab ak ñaar waaw akob super super ko tàmbale super moo daa dem ci ku baax ki moom ndeysaan super moom da ko daa ber ci wanagu boppam mm-hmm. wax nañ na sax cheikh bi dara tànn nga ca dem ku ñu wax cheikh taal la daan jité cheikh tal galo cheikh taal mo ran togu togg super bi. ndeysaan. moo mhm. daan super bi maam cheikh ibrahim Fall nak mhm. fukki ndab ak ñaari su ko masaan a togg. Mhm. do ngay yanu ko yobul ku baax ndessan mu tàmbale ko ci biir kërëm ci njariñ. diko ko togg. di ber super bi. di wax ne ki gën li gën lañ koy jox. tay wa ki gën. ki gën cheikh ibrahim li gën lañ koy jox. li gën lañ koy jox. léegi nak ñu tambali waaye suñu masaan di togg ndog yi nak sëñ Mourou Abdoulaye Fall Ndar nee na. Mhm. Mhm. Cheikh Ibrahima Fall day bàyyi ba saxaar si jóg. Mhm. mu jël toogukaayam ba sées ba. ñëw tek ko fi saxaar si jëm. saxaar si gand ko. gand ko <laughs> doom yi ñu wax lal la. ñëw na ko bàyyi moytul saxaar. ndax baaxul ci sa yaram Cheikh Ibrahima Fall na ko lal la xanaa na saxaar saxaarus yi sëñ bambi day dindi ak ak na yi bambi day dindi ak ak na yi bambi taw su fekk ci Cheikh Ibrahima Fall daal di koy tàmbali nag. Mhm. ñu di ko togg. Mhm. maam Cheikh nag togg na ko. Mhm. ci diggante at mii ma la wax. waaw muy diggante mille neuf cent quinze. wala seize jàpp dix huit. jàpp dix huit ba mille neuf cent trente bu wàccee liggéey. waaye nag lu jiitu ndog yi nag. Cheikh Ibrahima musta deñ di togg ay ndab di ko yónnee ku tedd ki. ndeysaan da ko dëkkee woon. waaw xam nga Cheikh daa gëm ne dabe ndab. dabe ndab waaw maam Cheikh nee na. ku bëgg a dëb góor yàlla yi. nee jullit ñi. Mhm. dinañ leel ñu lekk ba suur. Mhm. boobu rek a fi des. dëgg la joxe ñam joxe ñam. te xam nga Touba moom mooy seen yéegukaay mooy léegi nag maam Cheikh Ibrahima Fall bi sëñ Touba nekkee ndar. Mhm. te Cheikh Ibrahima nekk ndar. nekk ndar Touba bi jàpp jël sëñ bi yóbbu Gabon. Euh, Cheikh Ibrahima Fall daana wut ay gàtt. ay gàtt yu baax yu baax. di ko muusal. muusal. bu ma mu def ko ci bëri ko bëri ko. tëj ko tëj ko dëgg mu ñuy wax bay gay yelli bay gay bay gay yelli bay gay yelli ca ndar ca ndar moo daan suude barigo yi bu ko suudee mhm. mu yónnee ko côté dëkk Gabon côté dëkk Gabon waaw sëñ Moussa Ka wax na ca woy wa woy wa guddeeg bëccëg ñam ya di ñëw ba Bamba xëy sàkkum pexe sàkkum pexe ndeysaan kon Cheikh Ibrahima musta deñ mhm. joxe ndab joxe ndab bi mu nekkee Cees it mhm. sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng doomu sëñ Mour Moussa Fall moo ma ne Cheikh Ibrahima Fall daana togg ay ndab teg ci sa saxaar teg ko ci saxaar gi ñëw rëgëriir saxaar gi bàyyi koo Cees mhm. jaar njaarim wàcc ndab yi mhm. donc nga yenn ko yóbbul ku baax am na ci bis boo xam ne sax mhm. maam Cheikh daa war a togg ndab yi ku teddi kooku Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul dajale mboolem la cay dem ba mu des ndawal am naar jiital gëléem kaalawu kaalu rëy ndax nee na daanaka war na fukki kaala ak nangam. Mhm. lañ ci jublu mooy bu gërëm gi meree buy sëq ci seen bopp yam ci kaala yi. yam ci kaala yi. bi mu ñëwee yesal gileem ga nuyu Cheikh Ibra Fall na ko gileem gi dama koy jaay. Mhm. maam Cheikh ne ko ah, bëgg naa ko de waaye aw ma xaalis. soo ma wóoloo nga lebal ma ko. <laughs> mu ne ko wóolu naa la ko daal di koy lebale. Mhm. ci fanweeri dërëm. fanweeri dërëm Baye Ibrahima Thiam nee na santaan ñu defar gileem gi. mais bi ñu ko defaree. Mhm. nee na laataa bëccëg gi ñu boole ko añ yi. Mhm. mu dem mu dem Cheikh Ibra ngi toog naar baa ngi toog. waaye maam seex nag mbooloo maa ngi raam ku ñëw nuyoo dara. waaw Cheikh Rafal day téye ba loxo fees mun a gees na ana borom gileem gi mun a mhm. maay mën a ko am. ku ñëw nuyoo dara. maam Cheikh téye ba loxo fees mun a gees na ana borom gileem gi. mun a maay mën a ko am. Baye Ibrahima Thiam nee na naar bi lu mu dajale li ko Cheikh Ibra Fall jox mat na ñeent téeméer ci xaalis te fanweer la ko maam. te fanweer la ko waroon a yoreel. nee na bi Cheikh Ibra mu daal di rocceeku dem. dem xam naa cim xelam dafa jàpp ne. Mhm. bu maam Cheikh jógee bàyyi ko dongee danañ li lim ko jox. waaw ndax ko yoreel moom li ëpp na ko jox ëpp na ko. na ko Cheikh Rafal bi mu génnee def na gees naa doom ana borom gileem gi. Mhm. ñu ne ko Fall dem na mën a feeg jant yi so. lu fi mhm. dëkk moo ko moom ngir sëñ Bamba. cey feeg dikk moo ko moom ngir sëñ Bamba. ngir sëñ Touba parce que xeetale gi mu ko xeetale ci añi ku tedd ki. tax na mu nar koo jox lu jënd ñeent ko gileem. la ilaha illallah. cey ton Cheikh Rafal sëñ bi rek moo doon waajukaayam léegi nag loolu moo doon cosaanu tàmbali ndogu yi. cosaanu tàmbali ndogu waaye ñaar fukki fanu kooru yi nga xam ni. Mhm. xew-xew boobu lu ca xew ñaar fukki fanu diggante sëñ Tuba ak maam Cheikh Ibra Fall ñaar fukki fanu koor gi sëñ Mamour. waaw xam nga ñaar fukki fani waaw day lu doy waar. Mhm, mhm. Euh, ndax mooy bis bi ñu nangule ku crédit ki maam Cheikh Ibrahima Fall. ndeysaan. waaw. ndeysaan. ndax Cheikh Ibrahima Fall. maa ngi koy wax léegi rek ci ci Facebook bi ci internet bi. Mhm. Cheikh Ibra gor la. gor la mhm. Mhm. ndax moom rek ci àddina. lañ mas a gis as gor su toll ni moom. di wër ko moom. cey wër ko ko moom. waaw cey jàng histoire xam nga ne. yaan yu moomam ji. ba nga ko waxagul ku moom nit da nga koo rey mbaa nga rey bokkam. wallaay dëgg la. kon Cheikh Fall mu njëkk a wax ku tedd ki na ko yaamay moom. yaamay moom. parce que maa moom dafa wóorul. daa wóorul yaan yu moom moo gën a wér. moo gën a wér ndeysaan waaw. maam Cheikh Ibrahima Fall mu ngi bàyyikoo ci ay bokkam. di wër ku tedd ki waaye ci ndiggalal ku tedd ki nag. Mhm. ci ndiggalal sunu borom tabaraka wa taala mhm. waaw te dinaa ci dikk. waaw te bi muy génn ci bokkam mhm. li mu war a xam lépp xam na ko. doomi soxna la. parce que Seynabou Ndiaye ndeyam te njare la dëkk. ndeysaan bu dee ci faluk àddina it. juróom-ñaari dammeel yi mas a falu ci Kajoor. ñooy maamam. ndeysaan wax nañ ne dammel moom ci Lat Joor sant Jóob ndeysaan ku ne xam ne ci ndeyam la ko jëlee waaye dammel Fall la daan sant Fall la sant cey kon njabi mooy kër baayam mhm. wàqi mooy kër ndeyi baayam mhm. mooy njare mooy kër ndeyam ndeysaan Ahmadu Roqee mi ko meññi mhm. Amar Fall Roqee Njaay ko bu Njaay mi ndeyam Balla Faagee moo ko jur ak maam soxna Balla Njaay ay doomi soxna lañ juróom-ñaari njare yëpp foo ca dem tey taalu jàngu yàlla fa ndeysaan donte ne sax am na yu gent mhm. waaye njare yi fa des mhm. ba ci sax njare wàq gii nga xam ne alaaji mi ngay njare mu xaddu maam alaaji Malick moo fa mhm. nekk te sëñ Mara Ndiaye fa ne boo fa demee xam ne ñii ay nitu yàlla lañ ndeysaan te njare fa la maam Seyni mu Ndiaye dëkk dëkk fa la ganee jamono njare wàqi Cheikh Ibra Fall fa la ganee jamono fa la ganee jamono ndeysaan fa la jàngee itam nag ci ay nijaayam ndeysaan parce que balla faagee di maam daara la yoroon di jàngale kookoo jur maam bu Ndiaye nday Cheikh Ibra Fall mhm. te mag ñi nee nañ ma ca njare bu maam Balla Fall gi masaan a génn mhm. nday Cheikh Ibra Fall maam Seynabou Ndiaye téel dong yi ñu tari moo tax Cheikh Ibra Fall waxoon ne jàng naa Alxuraan bu mokkal ko tafsir naa sax téere xam-xam waaye suñ borom moo ma ne mhm. ji ne li def ci kenn laa koy def moo tax li may def ci jamono def naa ko ci Ahmadou Bamba dama wëri ko dama wëri ko moo tax Cheikh Ibra Fall nag ñu ñëwee ci ku tedd ki nag jéemu ta woon am njàng moom ndax waxoon na ne jamono ji sëñ bàmba ne mm. kenn du foo ko ne xam-xam ndax sëñ bàmba kat doom day defar di génn may defar di denc waaye teewul nag lu mu war a xam xam na ko xam na ko mm-hmm. taf téere yu mu da war a tafsir rek Cheikh Fall lu mu war a jàng-jàng na jàng te loolu te ku sonnoon ci njàngale itam nag ndax ay nijaayam a daa jàngale foofu ci jare fa la defe lépp waaye ba digg ba jotee nag mm-hmm. te sunu borom wax yu ko mm-hmm. xamal ko Cheikh Ahmadou Bamba na faaw nga gis ko ngir jox ko sa bopp sëñ Moussa ko xibaar mas nay xibaar la wax Cheikh Fall nee na moo nu ko nee na Cheikh Ibrahima ko nekk li moom bay wax ne yàlla mi ko moom. moo ko nay xibaar ak njébbalum. wax ne yàlla bay wax ne yàlla mi ko moom moo ko ne bamba moo la moom raasi ko. jox ko say waral nag mu wëri. tey ba mu déparé nag. Mm-hmm. pour di ndax booba xamul fan lay fekk sëriñ bi ci benn dëkk. Mm-hmm. yàlla dogal na itam nag. Mm-hmm. néew ñu ko nii la mel wala nee. waaye xam na ne daal. mooy jantum njolloor. boo xamante ne bii moom war na koo gis. ngir liggéeyal ko ngir ko mu Cheikh Ibra jaayante nag ci mhm. wër gi mhm. lu mel ne bant wala mbaar mhm. wala sàkket wala lenn luy nuru ne lu fi lu fi kooko lu lu ki muy wër lu lu mu fi bala loolu moom dana ko doy sëkk ci mu liggéey fa ba am li mu bëgg loolu la jaayante woon moo tax leer gu mas a gis muy lu lu yéem nit àddina wala lu rëy. Mhm. mu defe ne Cheikh Amadou Bamba la. loolu moo waral bi mu déparé. Mhm. mu séen si dëkk ba ñu wax Sine lay kan. Sine lay kan Cheikh Rafal séen fag leer ca armeel ya. ca armeel ya mu di ko topp ba mu dugal ko ci biir armeel yi. maam Cheikh fanaan fa def li si xaar. Mhm. xëy ndekete ki muy seet du moom. du moom mu waxtaanee sëñ Maram kan. ne ko ki may seet dama defoon ne ci dëkk bi la feeñ mhm. waaye dama bëgg jaar côté gànnaar ba xam xool ko ci ñu weex ñi ndax da caa feeñ ndeysaan sëñ maram kan waxtaan ak moom na xamal ko dëkk bi ñuy wax Badar Gueye mhm. na soo fa demee mën naa am mhm. donc ko fa fekk ndeysaan maam Cheikh jóge si kan dem Badar Gueye bi mu egsee Badar maa ngi ciy siyaar baax sëñ Saliou Gueye Badar sëñ comme sëñ Fallou Gueye Badar rek ak sëñ Mayib Gueye ñoom ñëpp njabootu sëñ euh, sëñ Mayib Gueye Badar la bi mu egsee Badar fekk fa ku ñu wax sëñ Mayib Gueye ca jàkk ja Cheikh Ibra dab ko. boobu da ko fekk mu julli maam mm-hmm. Cheikh dab na ko ci julli ga. ba mu àndeek moom ba sëlmal ñu bokk toog. Mm-hmm. Cheikh Ibra xibaar ko xamal ko li li ko tax a jóg. li ko tax a jóg sëñ leeral ko ñoom ci lañ nekk. Mm-hmm. maam Cheikh ne ko loolu de baax na loolu waaye ku waaye loolu ma jóg. ndeysaan nee na nag badar lañ ko wan a leer ku tedd ki mm. maam Cheikh jóge badar nag dem tay ba Dakar dem tay ba Dakar bi mu egsee tay ba Dakar nag te mm. fekk na fa sëñ Bamba Sylla ah. te muy koo xam ne sëñ Touba yónnee woon ci moom Cheikh Adama ak Cheikh Makhtar nekkete booba yi lépp programme ku tedd ki la ndax sëñ Touba namm mm-hmm. Cheikh Ibra Fall xam na ne mm-hmm. ñoom ñaar buñ gisee ndax mm-hmm. maam Cheikh ne la ma déggoon malaaka yi doon ko tëgg mooy ku fi njëkk jël loolu la waaye nee na ba ma de demee ba àgg lay xam ne li tax a gënee hmm. lañ njëkkewul ma laa koy soppiwu tëggin naan bëgg gëm ak jëf bëgg gëm ak jëf ñu naan ba hmm. loolu ay message la yu Cheikh Ibra doon jot yu kenn du dégg ku doon moom nag hmm. ba mu egsee nag gisee Cheikh Adama ak Cheikh Mata ci tënk rek comme waxtu wi xat na maam Cheikh Ibrahima Fall tegtaloo ci ñoom dem ci ku tedd ki moo tax daana wax ne su ma doon baag bu tàbb ci teena ñu lugat ko ba mu génn te ndox ma tuur goj ba daggu Cheikh Adama tey maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Adama la tegtaloo. Mhm. ànd ak moom dem ci ko tedd ki Cheikh ba Bamba Khadimu Rasul waaye da lay xamal na nag Sëñ Abdou Lahad mhm. ñoom ñaar mission bi du fii. dañ mhm. koy yeggale waaye du fii. mooy ba mu ko gisee daf ko ne mbàkke feeñ nga. tey waaw feeñ nga feeñ nga. xam nga kenn du wër loo xamul. déedéet kon am na fu ñu xamante woon fudd fii. waaye ci azal nag dañu waxtaanee woon. loolu mm-hmm. nag day ca kaw. Mm-hmm. te comme àddina ngi seetaan te dama bëgg ñun ñëpp ñu mën ñoo dégg. moo waral waxtaan ma teg ko fii. parce que ñun pare nañ ci lépp. fi nga nekk baax na. jeex na tàkk. Uh-huh. maam Cheikh Ibrahima Fall Baay mu Muridina nag. Mm-hmm. la mu waxante woon ak Cheikh Ahmadou Bamba. ci bu ñu àndee jamono. lañ tax ñu lay tax ñu ràññ ñu mën a gindeeku maanaam ñu mën a gisee. Mhm. loolee la maam Cheikh Ibrahima Fall daan doon wër. Mhm. ci mboolum tu yàlla yi mu fi doon dégg. Mhm. waaye comme dem làmb la. Cheikh Ibrahima Fall sax nee na bëri na ci ñoo xam ne ba ma teeyee fi ñoom. nee na su guddi ma saana jot seeni daraja. lañ may réemaleel. ndeysaan Cheikh Ibrahima Fall nee su ma xoolee. du ma ci gis kenn koo xam ne dana ma ëpp daraja ca borom. man a garab bu la sutu dala mën a may kër déedéet moo tax muy wër ba mu gisee Cheikh Ahmadou Bamba nag xam na ne ki a kii ci moom la ci ci kii la bokk. a ko mbàkke feeñ nga. feeñ nga léegi nag boo ko sëñ Tuubaa waxee nag ndongo li doonoon say tànk. Mhm. mu ne ko dama bëgg a yegg ci yàlla. loolu ci mbàkke Kajoor la xewe woon fa la xewe ndeysaan loola nag jiit na ñaar fukki fan yi koor loola jiit na ñaar fukki fan yi koor loola moom ci fan yi ñu toll fan yi ñu toll lay toll fan yi ñu toll nii ndeysaan naa ñu ci xam naa fukk yu jege waaw fukk yu jege ñu ci juróom-ñeent yaakaar naa fan yi ci gannaaw la waaw fan yi la xam nga dama du bëgg a laal dara ndax lu am version lu ne du ma ci bëgg a waxtaan waaw ne rek daal ah, ma ko waaw mhm. dama bëgg waaw comme Cheikh Ibrahima man àttewu ma daal dëgg la ok waaye nag lu ma fi wax mag ñee ma ko wax te Cheikh Ibrahima la waaye comme Cheikh Ibrahima mënee su koo xam mhm. Mhm, maa ngi ñaan yàlla di gën a dox ci yëg-yëg ndax ne dañ ko yëg mhm. waaye kenn du ko xam dëgg la waaye nag saa bu la yëgalee boppam rek nga xam mhm. li xew ndeysaan jërëjëf Mamour ñu ngi tolloon foofu ci Cheikh Rahma Fall ak Sëñ Tuubaa ba tey keroog ba nu gisantee lan waxante foofu lan toll waa kay xam nga bañ gisee waxante ga nag bo loola waxtaan la loola nag mooy bagage bi nag ndax yàlla du dëkk yàlla du nit ba mm-hmm. nga naan dama caa bëgg a yegg léegi nag buur nay nopp mm-hmm. suñu laxat ba tax na mënu a ci cib dënn mm-hmm. waaye xam nga ne boobu kenn waxagut ka ko njëkk a wax waxul wax ju ndaw déedéet dama bëgg a yegg ci yàlla ak ci yàlla waaw sëñ Tuubaa ne ko bu ma xamoon fu yàlla ne dama fekk ndeysaan Cheikh bi ne ko dama topp tànkam ba mu dugg ci kër gi su ma génnee tànk ma génn kër gi amu fi soxla kenn ku dul yàlla ndeysaan kon Cheikh la xam na li xew de xam na li xew nee ko ki may seet du ku ma dajal ngay nuru nuru la ko ma teg la ko ma teg la xol la ma yàlla defal yoo xam ne bu ma la gisee ngay nuru nuru rek may seet doo moom mm-hmm. dama koy dëpp say mbir boo xam ne ma cay fekk moo tax Cheikh Ibrahima gis ga daa sar am na mm-hmm. leen am na lu mu gis te mm-hmm. yàllaa ko xamal li xew ndax moom mission la yoroon mission la yoroon xam nga ñun mën nañoo jébbalu ci ndimbalal yàlla waaye Cheikh Ibra Fall nag moom ci ndigalal yàlla la jëm ndigalal yàlla la yàlla gindi doo réer Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul nag maam Cheikh Ibrahima Fall baa ñu mur dina mhm. sëñ Touba ci boppam mhm. moom suñ borom ci boppam mhm. moo ko tegtal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul loolu moo war a ko gisee mu ne ko yàlla moo ma moo ma joxañ ma topp tànkam bam sefe yow ko génn ma tànkam génn kër gi sëñ bi bàyyi ko ci kër gi ay fan moo ko na ko loo a jóg mu ne ko a yegg ci yàlla bi nag daal di koy xamal nag ñoom ca lañ xamal ko ci liñ fi fekk. mooy mhm. mooy ibaadaat yi rek mooy mooy comme liñ nekk nii ja jaamu yàlla julli woor. natt mhm. asaka na yooyu. Mhm. Cheikh Ibrahima na ko loolu taxu maa jóg. moom mooy ko la. waaw Cheikh Ibrahima na ko loolu taxu maa jóg de. waaw. ndax ki ma yàlla seetlu. Mhm. danaa ko wër ba gis ko jox sama bopp. Mhm. liggéeyal ko moom ma gën a jàng moom ma gën a julli moom ma gën a wóor. ci Cheikh Rafal ne ne ki ma yàlla seetloo na ma naa ko jox sama bopp. Mhm. ku ko liggéeyal. mu ci safara tàbbi àjjana te bu mënu su ko am te loolu mënu su ko am te jullee wóor. déedéet. ndax Cheikh Rafal tekki naa ndax jàng ak jullee kat bu doon tax a yegg ci yàlla. kon Iblis dana daj yàlla kenn. wallaahi dëgg la de. Hmm. nag loolu lépp nag tax maam Cheikh Ibrahima Fall it moom it di am lu muy wër rek. di am lu muy wër waaye nag ba nga xam ne nag waxtaan wa hmm. mat na moom mooy li ma wax nii jiitu ñaar fukki fan. jiitu jiitu na ñaar fan. waaw kay waaye nag ba matee ñaar fukk nag. dina hmm. ko sëñ bi nangulee. waaw ah, ci ñaar fukki fanu koor gi. waaw na sëñ Touba nangulee Cheikh Rafal. jébbal sëñ Moussa Ka moo wax ne ca woy wa. Hmm. moo wax la bis ba ngir mu wóor. ñaar fukki fan la ci wóor ci weeru koor. bisu dibéer la mbir mu wóor. waaw ah, bisu dibéer la mbir mu wóor contrat bi waaw. kon contrat ba ci bisu dimanche la. waaw bisu dimanche ca ñaar fukki fan weeru koor ca ñaar fukki fan weeru koor. ndeysaan moo tax. Euh, bis boobu nag moom bis la ndax sëñ Mourou Tafaal moo nu waxoon ne. Mhm. Cheikh Ibra bañ ko nangulee leen nangul ñëpp. waaw buñ ko nangulutoon du nangul kenn. du nangul kenn dëgg la de. kon ci bis boobee ci lañ ko nangulee. ndeysaan léegi nag sëñ bi nag commencé koo jox nag ay jumtuwaay ngir mu génn dem liggéey. dégg naa ci sëñ Cheikh Mbaye Yaram mu ne. Mhm. Cheikh Moudou Fall ma mhm. Fall. mi nga xam ne moo nekkoon ak Cheikh Ibra Fall. di bëkk néegam. moo ko wax ne ko nijaayam. sëñ Daam Abdourahmane Lo. moo ma ne bi Cheikh Ibrahima ñëw Mbàkke Kajoor fala la ma fekk. waaw nee na bi Cheikh Rafal di ñëw Mbàkke Kajoor. Mm-hmm. nee na fa la fekk. Mm-hmm. daal di koy wax ne ko. Mm-hmm. Cheikh Rafal bi mu jébbaloo daa féetewoo liggéey. sëñ daam nee na ku gis Cheikh Rafal wenn waxtu nga gis mu waxtu fajar. ndax lu mu yëndoo liggéey ci bëccëg gi day bàyyi bu gudd jot mu roñ ko ko indi. su ko roñee ba mu mat mu jël goj bi ak baag bi root ndaay bu noppee mu tëral goj bi di bale ëtt bi waxtu fajar di fenk daal mhm. fa nga gis a Cheikh Ibra Fall boo ko fa gisaatee suba la ci waxtu boobu xanaa mooy yëndoo liggéey fanaane root waaw yëndoo liggéey gaa yee nelaw ba naan xuréet ba lay ganaar naan kurkuréet moo fa xewal daawul dox daawul dox moo fa xewal nuyoo di raam moo no tere wuyoo na naam fekkoon na ñu jàng fa daam moom muñ roti fere fekkoon na daara di riir muy dindi àllarba ak dibéer maam cheikh ibrahima fall mhm. ko fa gis rek waxtu gis waxtu fajar waxtu fajar ndax lum yendo liggey gi seigne daa rahman lo neena mhm. ne day bu guddu jot mu roñ ko su ko roñee ba mat mhm. mu jël goj bi ak baag bi rot nday su noppé mu goj bi di balé atti bi waxtu fajar dal, fa nga gisé cheikh ibrahima fall bo ko gisaté suba la ci waxtu woowu mais am bis nak nee na ku baax ki sëñ ku baax yor ab jakam jak moy ti yi mag yor ñëw ba ci sun bunti di feug na ndax yew ngeen ñu wa mu mun jog leen tal jang jot na suñ daam Abdourahmane Lo nee maam Cheikh Ibrahima Fall nga yanoo sayu matt ci àll ba mhm. tombee mhm. sëñ bi dañuy fëgg naan jug leen taal jàng jot na ne mhm. ci làmmiñu ñu Ibrahima Fall la dégg ma naan ku tedd ki bàyyil doomu jàmbur yi lii nga leen di wax te wax leen la sa borom wax njëriñ nga bàyyi li nga di wax lu baax de bàyyi doomu jàmbur yi lii nga leen di wax wax te wax leen ni la sa borom wax ñu jariñu ci da nga bàyyi li nga leen di wax booba xam nga kon seen maam a ngi yett buntu nag Cheikh Ibrahima wallaay mu buntub jaayante buntub jaayante waaw yëf yi jaayante la yëf yi jaayante la ku ñaan ñàkk boo jëndee am wallaahi dëgg la te moom ni moom da koo jënd kenn mayu ko dara nag déedéet ah, daa jënd daa jënd léegi nag ma sëñ bi wuyu ko de nee na ci ëllëg sa mhm. Cheikh Ibra Tombe wàcc mu ne ko am ah, Mbàkke doo waxoon naa la ko bii man a bàyyi doomu jàmbur yi nga leen di wax te wax leen la sa di la sa borom wax njëriñ te nga bàyyi li nga leen di wax waaye nee na nag ba ba mu ko waxaatee sëñ bi nag ca ëllëg sa nag sëñ bi ne wël bit dajeeg moom mhm. ñëw ba jege ko Cheikh Ibra Fall boobu sëñ bi sotti sottal ndox seen diggante seetala mhm. gam yoroon Cheikh Ibrahima boobu rek sëñ bi ko jàll. ndeysaan nee na ca jamono boobu nag ca la décret ba wàcc. ndeysaan xam nga lan mooy décret bi. lan mooy décret bi. ku fi jàng indi woon. Mhm. seetal keneen ko am jotam waaye leneen a ngi fi. a ngi fi. waaw ku baax kee ko wax de. waaw rabbi saabaka bil himmati. jeex na tàkk wala taraf bi dar sa wax fenn ne. Mhm. Cheikh Ibrahima ku tedd mhm. la tas samp moo tax Cheikh Ibrahima Fall. xam nga dingatu doon am njàng. ndax bu doon dingat njàng. du jël ay doom du leen dugal école école franco arabe mhm. ca Ndar école fils de Cheikh mhm. école madrasa mhm. muy sëñ Fallou Fall sëñ lay Fall Ndar sëñ Assane sëñ Aliou Fall Mboor ndeysaan nag day day day waaye nag day léppam day jàngale day jàngale xam le ne liggéeyal sëñ Touba mooy li gën mooy li gën moo tax Baye Baye Mor dànq nee na Cheikh Ibra bu masaana ñëw seen daara fekk fa téere fekk xaal bu xaal da koy jàpp yenn saa yi daan nañu fa ñëwaat xaal. nee na bu ñëwee bu ne cas téere bi. danaan ku moom di borom na cell. mu ne ku moom di borom na cell. Mm-hmm. maam Cheikh wax ne bëgg xam li ci biir. Mm-hmm. bëgg liggéey sëñ ba mu tànd. déedéet parce que Cheikh Ibra Fall ne d'accord ku jàng loo gis xam ko waaye nag ku liggéeyal sëñ Bamba lu bëgg am te maam Cheikh jaamu yàlla moo ñaqal sëñ Bamba loolu moo waral bi mu ñëwee nag pour mu signé contrat bi mm-hmm. mooy dafa wax sëñ bi li ko tax a jóg li ko tax mooy li ko yàlla tegtal te li mu war a ñaqal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul mu tax mu mm-hmm. tax nag te nag la wax lenn mm-hmm. kenn du fay wax di bàyyi jëf déedéet ndax Cheikh Ibra Fall ci jëf la taxaw ci jëf la taxaw loolu mooy mission bi nga xam ne mhm. moom la indi ci Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu ba jàngal ko nag mhm. mboolem ku mu fa fekk ci Mbàkke Kajoor diir boobu ñaata at la waa xam nga Cheikh Ibra mhm. ñetti at la muritu ku tedd ki moom waaw ah, ñetti at la muritu waaw ndax bi Maam Mor Anta Sali wàccee liggéey wax nañ ne ca déwén sa ca la Cheikh Ibra Fall ñëw Mbàkke Kajoor bi mu ñëwee Mbàkke Kajoor nag diir bañ fa def waaw diir bañ fa def dañ faa jógee dem daaru sa dem Mbàkke Bawol bi ñëwee Mbàkke Bawol itam def nañ fa diir mhm. sëñ bi door a sanc Daaru Salaam waaye sëñ Cheikh Ibra tàmbalee sancal sëñ bi nag mhm. ndax moom su Daaru Salaam moom Cheikh Ibra ko gis xibaar ko ku tedd ki ñu toxoo Mbàkke ñëw Daaru Salaam mhm. sëñ bi tudd ko kërum jàmm ko kon ñetti at daal la liggéey sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa gërëm ko waaw léegi bi ko sëñ Tuubaa gërëmee da da koo teg ci wetam wala da koo yebaloon ci dëkk mu nekkoon fa waa xam nga ngërëm li Cheikh Ibra Fall wax na kenn ci mag ñi ne ko fanweeri at laa bëggoon a liggéeyal sëñ Bamba. Mm-hmm. waaye ñaari at ak genn wàll képp laa ko liggéeyal suuf si at nutuma tey moo waral maam Cheikh taxañ ko. taxañ ko ci ñetti at yooyu ci ñetti at yi. léegi nag bi mu ko wàccee Daaru Salaam la ko wàccee. Mm-hmm. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru gàmm. Mm-hmm. waaye da kaw yabal ndar. ndar mbay du Niang moo ma ne. maam Cheikh la ko boole na ko dénkal ma ko as tey mu ànd ak mu dem fa maam as Camara mhm. mu dal Sindoodi foofu ku miin ndar xam nañ Sindoodi mooy ville bi mooy ville bi waaw mhm. ba mu demee ca maam as mhm. am fa ab diir maam as na ku génnal ndar ñu séq dex gi ndax maa yoo xaj ñu biir ndar seerafaal dem gendar waaw gendar nag fale jële ak njaboot daanaka njaboot gu mag gi fale leen amee mooy fat faal wadd wax nañ ne ci soxna ya ma nga la bokk sëñ Fallou Fall fale gën a jamono sëñ Ablaye Fall ndar ñoom sama roqee Fall waaye di ko sëñ bi wàccee moom mhm. da ko yebal ndar ba mu demee ndarit mhm. wàccewu ko ngir mu dem toog da ko soppi aw liggéey aw liggéey ndax xam nga eh, yalwaa nekk mhm. eh, ak ak ne ci tool yeeg yooyu ni bay moo amoon ak di di taxani mais yoon nag Cheikh bi daa dugg ci wàllu commerce ak bay ay lujuma xeet yu mel di dundee aw ñaqam waaw parce que commerce rek fexe ba doom homme d'affaires rek li ko maarab tudd moom ko defee di yónnee Mali Mali ma surang surang mu koy jëlal daakaande Cheikh di ko jaay tubaab bi sëñ Cheikh la ma ko wax ubbi fa ay boutique cinquante boutique jël Mor Ami Diop ñoom def ci port bi jël Mor Tola Wade ñoom moo jur Ablaye Wade mi ndeysaan jox leen ay machine sancerre ñuy ñaw Cheikh fa di ñaw pajaas boobu pajaas moo xew ndeysaan mu dugg ci wàllu boobu mhm. léegi nag lu mu dajale ci àddi yónnee ko ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul moo tax foofa Cheikh Ibrahima bi gars yi woowee milliardaire 1895 boobu Cheikh Ibrahima nekkoon na ko jekku àddina lool nag am ay titre foncier yu baree baree bari ci ndar ay balakoos ay ten jigéen ay gendar xam nga mm-hmm. fu ne boo ñëwee gendar sax mm-hmm. boo dépassé tuuti côté géej gi rek ci côté mm-hmm. marché bi boo xoolee loola Cheikh Ibrahima amoon foofu ndax école Cheikh Touré kër maam Cheikh Ibrahima Fall wax nañ ne fa la a ba jëm caaka Njaay ci li foofu loolu suuf ba ci sax sëñ Jili Mbàkke sëñ Bay Mbàkke jaaxal da nga ko ziar bu baax moo ma ne kër sëñ Tuubaa gi ñu jënd ndar xam nga moo la yee ko jënd ci gendar dem naa ba gis ko nee bi ñu demee maire di defar kii turu Cheikh Rafal lañ ci fekk. tey. Mhm. ndeysaan turu ci fekk. bi ñu demee maire di defar kër di defar kii di. Mm. turu Cheikh bi lañ ci fekk. ndeysaan Cheikh Ibrahima kon léppam suufam la woon. ma daal di nag installé ndar nag. ndar nag am ay doomi ndar. Mm-hmm. yor kàddan di ay citoyen français. ba tax sax ñoom ñu bindee noonu soldar. Mm-hmm. quatre communes yi ku ci juddoo booba. Mm-hmm. bu soldaar amee da ngay dem da ngay dem sëñ Fallou Fall soro na sëñ Ablaye Fall Ndar soro na si ñoom ñun parce que ñoom Ndar lañ juddoo Ndar lañ juddoo quatre communes yi mooy Gorée Dakar Ndar Tëngéej ndeysaan mhm. bu bi mu jógee Ndar fan la dem Cheikh bi nag xam nga yàgg na Ndar te mag ñi sax neen dem na Ndar ñaari yoon ñaari yoon waaw bi mu nekkee Ndar mhm. sëñ bi woowaat na leen gannaaw bi sëñ Baara ganee jamono waaw wàcce waat leen wàcce waat leen mooy mooy mooy wàcce yooyu nga gis Cheikh na ko bëri ngërëm la daa bëri ngërëm waaw <clears throat> waaye nag mhm. bu nekkee ndar nag da doon génn. Mhm. dina am ay gànjul. gànjul waaw kay diggante ma gànjul fa ay tool. waaw. Mhm. Euh, xam nga gànjul nag. Mhm. ponkal la fa fekk. waaw. muy Cheikh Babacar Lo. waaw kay gànjul parce que kooku sax moo magoon Cheikh Ibra Fall. ci Mau waaw ci saayir mu sëñ Bay Lo. waaw parce que ab taawam dend ak maam Cheikh nii. waaw kay. féete ko wetuk càmmooñ. te takk maxtu mi nii. maxtu mi. moo setale gi. waaw Fall ña Anta Toob la tudd. ñoom ñaar seq Cheikh Ibra Fall waaye sëñ Bayloo sëñ Madloo moom mooy taawub sëñ Bayloo. sëñ Bayloo waaw. Mhm. Cheikh Seef moom njaarim la nekkoon. ndeysaan Cheikh Ibra ko yar. ndeysaan moo ko defal lépp. bañ ko bi mu waree toog xalifa sax bi mbaayam nelawee. Mhm. dafa dem jëli rakkam sëñ Ablaye Lo. mu dëkk Gusaas. gi dellu ca la ko Cheikh Ibra Fall sax toon mhm. la Cheikh Ibra fekk si Gànjool. te sëñ Bayloo ma magoon Cheikh Ibra Fall. ci saayir ci saayir. nag bi mu dikkee ndax sëñ Bayloo mi ngi ganee jamono ndóob. ndóob ci Gànjool waaw waaye nag mu moom moroom mu xàddu mu dëkk boobu. waaw mhm. di yélimaan ja mhm. di jàngalekat waxtaan lay xew ëllëg. di mhm. kilifa gànjul la tax nag seex ba toxal ko Cees. waaw mooy dafa ba mu jébbaloo ci moom. coow la daa bëri gànjul. faaw nag coow am. coow am ponkal mu toll noonu. su xëyee xëy topp ku du du woor. faaw coow bëri. faaw <laughs> parce que boobu xamuñu seex dafa am. te maam seex it. bi mu dikkee gànjul. sëñ Bello da koo dalal. comme sëñ Mbay loolu nag leneen la mhm. bi guddi jotee nag muy xool mbirum Cheikh Ibra Fall ba mu xëyee la ko jox boppam kon am na lu mu doon xool lu mu gis lu mu gis ci Cheikh Ibra loolu moo waral mu jox ko bopp ba mu bàbbee ko topp ko nag mhm. coow la bëri te lii ma lay wax nii ci atum 1890 la mhm. ci la jébbalu ci la jébbalu boobu nag bi mu defee Cheikh ñaari at ca Gànjool ci la commencé toxal Thiès toxal Thiès te booba it ay bokkam dañoo gàddaay topp ko ndeysaan muy sëñ mu Njaay ñaay ak sëñ Modou Gueye ñaay ndeysaan benn famille bi lañ rek mhm. ñoom ñëpp ñu jébbalu ci Cheikh Ibra Fall ndeysaan maam Cheikh toxal sëñ Babacar Lo indi ko Thiès ba mu ñëwee Thiès maam ba moo tax euh, lu mat a waxtaane mhm. bi mu ñëwee Thiès xama ku sëñ Bay Lo dal mhm. maam Ahmadou Baro Njëgeñ moo ko wutal suuf ndeysaan loo fa waaw njëgën njëgën yi. njëgën njëgën ñoo ko dalal ay muxaddam lañ. ñoo ko dalal ñoom la sëñ Mbayloo dalal. dalal ndax foofu tamit na faal am na looyeen. jeex tàkk moom mhm. laay wax booba mhm. sax. commencé gut a sanc. waaye bu ñëwee bi mu dalal ak maam Ahmadou Baro. Mhm. wutal na fa Seex Ibra sax kër. ndax maam Seex jóge na Ndar. gane si sëñ Mbayloo. ndeysaan ci kër maam Ahmad Alaaji. ndeysaan ba mu demee la ko ne nag na nga wutal barab fii. fii ba mu demee la yónni Baye Ibrahima kan mhm. maa ngi ziar bu baax njabootu Baye Cheikh Kane. ndeysaan ñëpp ñu ngi leen di ziar ba ci Sangoné Kane ñoom ñëpp. Mhm. Baye Cheikh Kane jàmbaar la. ndeysaan baayam maa Ibrahima Kane la Cheikh Rafal yónni jox ko gaalu xaalis. Mhm. na ko nañ ma jëndal barab. suuf Thiès. ni ko dalee kër Alaaji ba Fandine. Cheikh Rafal daa waxoon nañ jënd fépp. ndeysaan moo tax leen titre foncier bu ñu dikkee mën a doyul na ko dolli na ko dolli naan da ngeen ko soxla ji ëllëg ëllëg daal yëngu gaa nga ca xël ga wallaahi yëngu gaa nga ca xël ga dëkk Thiès xam nañ li may wax waaw xël ga waaw mhm. maam Cheikh Ibrahima Fall xël ga ca Ersan waaw ma ngoog mhm. maam Cheikh Ibrahima booba dafa bëggum jëndaale loolu ëmbaale ko ëmbaale ko am am dama na bañ mhm. léegi nag bi yàlla dogalee ñu ñu ñu yënd ko moo tax gis nga fi kër gi ma Fall titre foncier la pénc mi titre foncier la maa maa teg sama bët ñaari titre waaw te li ma wax sëñ Mbacke Fall présidence doomu sëñ Moussa Fall mi may dégg. moo tax bi nga xam ne dëkkee nañ penc mi. Mhm. sëñ Abdou Sakkour Fall. Mhm. di doomi Cheikh Fall te moom gana Thiès la ganee jamono. 1908 mhm. am ñu ne 1909. moo ñëwaat. ti génnewaat bornay Cheikh Fall delawaat Cheikh bi alalam. ci xilaafam. ci penc mi moom dañoo dëkkee woon li wër penc mi yëpp. te alali Cheikh Ibra. léegi nag Cheikh Ibra Fall nag. bi nga xam ne nag ñëw na gànjool nag. gisee sëñ Bayloo. te dafa amoon ay tool nag ndax tasineer kooku seex daan dafa bay ay njudum ndujum yi daan dugg si biir daal yëpp ñu koy jaay maam Seex Kora bay na ci ndigalal ku tedd ki loolu non ma sa sëñ Tuubaa ko sant waaye nag bi mu tuxal see sëñ bayloo nag mhm. ci la daal di nag waaj nag moom 1904 mhm. mhm. la ñëw Thiès waaye nag seex bi muy ñëw Thiès ndànd la jógee ndar la jógee waaw parce que bu mu jógee ndar. Mhm. dafay sañc ay togg. Mhm. sañc ndaay faal. Mhm. sañc léegi nag fekk ay côté guy reen yëpp jógee na fa. daal di ñëw nag ndànd faal. ndànd faal ndànd ba muy ñëw sëñ Issa Diène la fa dëkkal la fa dëkkal. la fa dëkkal waaw. moo tax dañoo jaxasoo woon ñoom ñaar. sëñ Issa Diène ak Cheikh Ibra Fall. dañoo jaxasoo woon loolu. wax mag ngi nee nañ ma lu dul ganaar bu ko Cheikh Issa masaana rey këram. Cheikh Ibra la yónnee Fall ragal. ba pare it firnde li mooy. tey Cheikh Babacar Lo am na doomam yu ñuy wax soxna xadiloo mhm. moo toppoon ci sëñ Modloo mhm. kooka Cheikh Ibrahima ko dëkkoo woon ndax sëñ bay sëñ Modloo mhm. sëñ sëñ sëñ Bayloo moo ko joxoon maam Cheikh ndax ab taawam la ko jox muy sëñ Modloo teg ci soxna xadiloo soxna xadiloo nag soxna Cheikh Ibra Fall la woon moom Cheikh Ibra am ca yaay Sooda Fall bi sëñ Baara jenn jugee ci daara ji la ko Cheikh Ibra jox mu am ca sëñ naar jenn naaru yaa Sooda Fall Cheikh daana toog na maa ngi koy dégg ci penku te boobu sëñ sëñ naar ñëwagul jamono wala sëñ naar ku bëri ngërëm la léegi nag ba maam Cheikh Ibrahima Fall bàyyi mu murid dina nag mhm. comme nag nekkoon moom moo sëñ moom léegi nag loolu la doxee gànjool mhm. ba jug ba jógee nag na ca mag ñoo xam mhm. ko tudd ca ma ca ndar ca mag ña la bokk moom ci ñi njëkk a jox seen bopp Cheikh Ibrahima Fall moom ci ñi jiitu fi Cheikh Ibra Fall la bokk. ndeysaan ak sëñ Mun Njaay ñaay ak sëñ Mourou Guèye ñaay ak. ndeysaan ñoom sëñ ñoom mag ñi lañ bokk. ca mag ñi lañ bokk waaw ak sëñ Mor Seck xaayaan defe naa. ndeysaan mhm. bi nga xamante ne bii ba ci Cheikh Atoumane Diop ah. Mhm. ne moom am Cheikh ñëw na mhm. ndax dafa am doomam joo xam ne. 1904. la a jamono. muy sëñ Mbacke Fall Khary Diop. sëñ Mbacke Fall Khary Diop. waaw kooku sëñ Mor Diarra. la ko Cheikh Fall tuddee. ndeysaan waaw magi mag magi mag waaw la ko tuddee te te at moomee sëñ Modou Lo am na tànk bu ñuy wax sëñ Mor Lo mm, mm. bi mu yónnee fi Cheikh Ibrahima maam Cheikh dafa ko ne ndigal li fi mujj sëñ Mor Jaara Cheikh Rafal boole Mbàkke Xari Jóob ak sëñ Mor Lo mu sëñ Bay Lo yëpp tudde borom borom borom borom saam borom saam maam Mor Jaara bi sëñ Mbàkke si sëñ Mbàkke soxna Xari Jóob mu ko jur maam Asan Jóob a ko jur bi mm-hmm. nga xamante ne bii nag sëñ Mbàkke gane na jamono ba si maam Cheikh tudd ko foofe te mm-hmm. la maam Cheikh Ibrahima Fall nag bàyyikoon daan ñëw toxu Cees ñëw toxu si Cees waaw. Mhm. booba am na fa am na fa suuf. am na fa suuf sëñ Bayloo wutal na ko fa waaye sëñ Bayloo nag moo dalal Cheikh Ibra moom. ca Thiès waaw. Mhm. bés bu set mu reyal ko gileem. tey waaw Cheikh Gatel. waaw Cheikh Gatel. waaw bés bu set sëñ Bayloo. Mhm. reyal Cheikh Ibra Fall gileem. sëñ Moussa nee na. am na kenn ci sëti sëñ Bayloo sëñ Cheikh Lo ma ko nettali am na kenn ci sëti sëñ Bayloo yi ku mu dajal. na kuy sama mu ne ko sëñ Bayloo. mu ne ko mu Thiès mu ne ko waaw mu ne ko miin naa ko ci dégg ndax at mi ma maam Cheikh Ibrahima Fall bay Mouride ne téye Thiès. Mhm. sëñ Moussa Kay nettali de. Mhm. guddi gu jot dana dégg Cheikh Fall ne tibbaleen Moussa Ka ci bagan sëñ Baylo yi. tey sëñ Baylo ne di jambar lool boo demee loyen Thiès gis nga. gis nga mhm. moo tax. xam nga lan mo doon sarti dox ci kër gi yim batale woon ba tey ji ca la dox daf na ku judd ci kër gi nañ ko nañ ko dalal alquran mu jàng bu jëlee wàllam mooy bu kaamil bu noppee na jël mbindum ku teddi ki te bu cheikh bi wootee mu tëliwu ji tey waaw looyeen ci loolu lañuy dox de. loolu la ñuy dox ndeysaan. looloo yoon wi di. looloo yoon wi bu baax nee na sëñ Babacar Lo nee na. Mhm. këram la wax de. këram nee na ku fu juddu. Mhm. bu matee dal jàng dañ ko dalal. bu mhm. jëlee wàllam. mooy bu mokkalee téere bi. na jël mbindum ku tedd ki. na jàng téere sëñ Tuubaa yi. te bu Cheikh Ibra wootee mu teel a wuy ji. mu teel a wuy ji tey. ay jàmbaar lan de. loolu moo tax maa ngi ba sëñ Amdi Lo mooy xalifa. ndeysaan yaa ngi toll ci. defarug maam Cheikh ma Fall. Mhm. wax nga mhm. mhm. mag ñi nga xam ne àndoon nañoo ak moom sëñ Atumaan Diop ca mag ñoon ci la bokkoon. ak mag ñi nga xam ni lim nga leen. ñu àndoon ak maam Cheikh Ibrahima Fall. dafa benn question boo xam ne actualité la. ñàkk jullu ak ñàkk a waru Baay Faal yi. loolu ma bëgg naa sëñ Mamadou ginnaaw am naa la exclusivité moom ñu waxtaanee ko ñàkk julli ak ñàkk a waru Baay Faal gi moom lu ko waral ba ëllëg si biir moom mu daal di leer ci bopp ni ñëpp mu nekk question boo xam ne moom réponse bi moom dañ koy amee fi Sénégal 7 TV en direct lu ko waral. xam nga question boobu moom. Mhm. li ma ci tontu daa bëri lool moom dama ne woon sax dootuma ci tontati. parce que mhm. xam nga lam saf moom ko ko màcc rek ko xam. waaw loolu dëgg la lamu saf. kaxu ma ci rek kaxu ma ci rek ko xam mhm, mhm. léegi nag Cheikh Ibra Fall mhm. damaa bëgg Sénégal képp àddina bépp laay wax xam na Cheikh Ibra terewul julli bu ah. ma julli mooy néewul bu kenn julli waaw ah, néewul bu kenn julli déedéet Cheikh wax ne waaw déglu bu baax yow rek laay déglu sama maam la ko wax man moom am naa ci réponse bu leer nañ parce que ki jur sama baay la ko wax la ko Cheikh Ibra te kooku moo ko daa bés ba guddi mu fanaan ci wetam Baye Cheikh Ndaw Baye Cheikh Ndaw Cheikh Ibra ko leewu ko boppam mooy premier turandoom ci kaw suuf ndeysaan Cheikh Ibra ko defal lépp lépp Baye Cheikh xamul ko du Cheikh Ibra moom ci Mirina gii mhm. Mhm. waxtu tabaski wala korité mhm. korité sax la sëñ asan Fall boobu mooy xalif général de Baye Fall sëñ Modou Minta di jëwriñ di njabootu Cheikh Fall ku mel ne sëñ sëñ sëñ sët yi sëñ Cheikh Fall ak sëñ laay Lay ñëpp ngi toog Baye Cheikh jug ca mbooloo ma ne sëñ Modou Aminta daa am lu ma bëgg a jottali laaj sa baay Serif Assane. Mhm. nga laajal ma ko. Mhm. sëñ Modou Aminta nag sëñ Assane baay Cheikh kat ne daa am lu mu bëgg a laaj. Mhm. mun na ko damaa gis ñu yaakaar Cheikh bi jullee ko woor. ñàkkut ci mbooloo mi ànd ak yéen ñàkkut ci mbooloo mi ànd ak man. te man Cheikh Ndaw maa ba seen maam Cheikh ba seen baay. fii ci biir kër gi. ba guddi gi sori mu ne ma Cheikh ma ne Fall mu ne bu ma kenn tuumaal. bu ma kenn tuumaal man cheikh ibrahim fall mhm. mhm. newuma kenn bu julli bu mu woor mhm. waaye borom mo wo bu ba wuyu ko mu ne ma amee loo mën a burub jullee woor yàgg ko def duma len fay na waaw neena na seet cheikh neena nee na Cheikh Rafal na ma banka sa baram dom neema ma munuma mënuma gën jang joxee gën julli manu gën kor Cheikh Rafal ma ko wax Cheikh Rafal ma tey Cheikh Ibra la ne moom fofu la nek te bayam muy mam babakar Ndaw mi ko jur ba mu nekkee fi Cheikh ra ba ñëw ndànd wax nañ ne sëñ Ablaye Yaqin mas na koo kalaameeg Cheikh Ibra Fall ne ko Babacar da jàmbaar la lool waaye du faat waxtu ci daara ji bi Cheikh Ibra ñëwee foofu ba mu waxtaan ceeg moom daf koo wóolu ba mu ñëw ne ko Babacar mu ne ko Fall mu ne ko jàpp ak julleeg woor lempob yàlla la ndeysaan war na boobu yàlla sàkk eh. waaye man Ibra Fall mii aju ma ci sama dara doom sama lépp dama ko ci liggéeyal sëñ Bamba tey Babacar mu ne ko Fall mu ne ko fa ñuy fayee jàpp ak julli ak woor ko fa taxaw ëllëg yow ma li xam dama seet doo ma gis tey waaye fa ñuy fayee liggéeyal sëñ Bamba ko fa taxaw maa lay fay mbaa doo fayu te man foofa laa bëgg a fay ko man foofu laa bëgg a fay ko jeex na tàkk foofa la Cheikh Ibra ne jaamu yàllaam muy maanaam muy liggéeyal sëñ Bamba tey fa la ne fa la ne parce que moom contrat boobu la signé woon moom ndeysaan mhm. loolu ca Mbàkke Kajoor leeral naa la ko. leeral nga ko léegi kon te nag Cheikh Ibrahima bàyyil xel ne. Mhm. ñàkk a ñàkk a woor. Mhm. néewul ba sëriñ bi dem mu dootu ko def. mu dootu ko def Cheikh fii la ne sëriñ bi ne fi. Cheikh mhm. Ibrahima du julli du woor te lu mu jox mu jël. te mujjug sëñ Tuubaa ci njëriñ mag ñi nee nañ. bi daana toggalu dara. na nañ ko wëral loo xam ne day ñore ca tooli Cheikh Ibrahima Fall. sëñ Ahmed Sougou mu sëñ Jéeri waa daana ko wax nee na fekk na ko ba tey ci njëriñ. daana lépp lu may def. bu ca loolu Seera Fall nekk nañ ko ca boole. dëgg la de waaw kon maam Cheikh Ibrahima Fall. léppam ci lépp léppam. ci kanamu sëñ bi la. léppam ci kanamu sëñ Tuubaa tey ku masaana tudd lu jëm ci ñàkk julli wala ñàkk wooru Cheikh Fall sëñ bi artu la. artu la ma wax am na benn naar bu ko mas a wax kay. Mhm. ku bàyyi ko gànnaar. Mhm. koo xam ne wëllëru sëñ bi la woon. Mhm. waaye keroog bi mu duggee ci cadre boobu sëñ Tuubaa daf ko ne Abdourahman ndax man nga ndox. mu ne ko dé mu ne ko dëppal bala nga lab. tey. dëppal bala ngaa lab. waaw. bala lab. moo tax Cheikh Ibrahima moom mbiram. xaariwul daray ëllëg mooy boo dal mooy dal la moom. waaw kon léegi su doon laaj. Baye Fall dëkk nu muy mel. ni sëñ Cheikh Jëmm Fall. mooy xalif général de Baye Fall. ni mu mel. noonu mooy loolu mooy Baye Fall. loolu mooy Baye Fall. waaw kenn du la ci dara. te loo war a sa sëriñ. jëf ko jëf ko. tey ku dem ca ndog yee. xool ni mel. xool lañ fay def. xool koppar yi ni mu dem ci chantier yi muy liggéey. ba pare te toogu jugul fi mu toog mosoo ko fee dégg Ndakaaru déedéet mosoo ko fay dégg Europe toog muy dox lay def sëñ Cheikh Jëmb waaw cey <laughs> toog muy dox ndeysaan maa ko wax fii ci télé bi sëñ Cheikh Jëmb Fall waaw xanaa xamu ne mm-hmm. Cheikh Ibrahima dafa waxoon ne mm-hmm. sëñ Touba ne ko mm-hmm. dinaa ne liggéeyal ba sama bàmmeel sax dina liggéeyal waaw bàmmeel bu joxe addi foo ko mas a gis xanaa bu Cheikh Ibrahima jeex na tàkk dëgg la de lu ëpp ay mi million mhm. man bokk naa ca ña koy yóbbu léeg-léeg ci ki fi nekk sëñ Tuubaa mhm. du dem fenn ci ki fi nekk sëñ Tuubaa la jëm ci barab Cheikh Fall lay bàyyi ko bàmmeel buy génne addi waaw danaa la liggéey la ko wax ba sama xabru di la liggéeyal ba sa xabru di la liggéeyal ba tey jii may wax yow nii Cheikh Ibrahima man ñëpp ci addi tam ñu tëdd ndeysaan moo tax mhm. ki xam-xam na mais ki xamul-xamul Cheikh Ibrahima Fall fi ne daa leer gis nga ak Baye Fall dëgg-dëgg mooy jëfe ndigal jëfe ndigal te kenn la gis ci lu wax naa la ko sëñ Bay loo léegi. di joxe àddiya. Mm-hmm. parce que waxi kese sotti lu fi dara. te Cheikh Rafaal ne woon na. Mm-hmm. kër gis man des des fi jëf ba jëf ba jëf ba raw waaye kenn wax ba raw. ndeysaan wax ma yëw fi dara. te wax fu mu ne yàgg ab diir jëfanewul. waaye bu ñëw ñëwee waxtu ko. te gars yi nag lu leen rëcc ci jëf mm. seenu làmm nañ ko bëgg a dam mais doon lu sot sëñ Cheikh jëm ngi nii kii Cheikh Rafal dëgg la de te ci màngi la mu gàtt gàtt gàtt 1925 mm-hmm. la yaakaar naa ne kon fi la ko ku moo man gars yi sëñ Cheikh jëm waaw ndeysaan kii moom daal da nga naan Baye Fall dëgg daal na mel ni sëñ Cheikh Jëmb. waa xam nga. ndeysaan xam nga xam nga sëñ Fallu sëñ Mourou Moussa Fall bàyyee ma ko jël. Mhm. teg ci loxol sëñ Fallu mu jiite daaree jumaa ji. liggéeyu jumaa ji. Mhm. sëñ Thierno Mbacke Gelongal moom ma ko wax sëñ Cheikh Jëmb jëwriñ la fa woon. ci jëwriñ yi la bokk di jëwriñ ju mag. di def di def tànki neen du sol daal. ñu ko daa wooye Cheikh Juma. te ku tedd ko waxoon loon boppam ne. Mhm. ku feeñ ci jumaa ji dootoo réer tay nee fang moy Cheikh Ibra moy Cheikh Ibra deug la te Cheikh Ibra nako batale parce que moo waxoon ne bu fi toge mm. su diglé def len mm. su téré ba su laajee jox len su woté wujj len su xamul ma xamal ko su amul ma amal ko su mënu ma man ko may fayta duma jël jeel Cheikh Jëmb Fall waaw ki way Cheikh Rafal moo ak Baye Fall moom boo ko xam do mm-hmm. doo rok roq roq roqoy dakaru yi rek ku ne nga dajé ak mom mu yor ab cigarette mba muy tox wala mu yor ay kalan kalan wala mu saqal bopam mm-hmm. nga def non di Baye Fall sequ ñëw Cheikh Ibra dara mako wax deug la Baye Fall yaa nga di togg ndogu. ngi mhm. ci des ñu ngi liggéey di waajal ay comité pour yóbbu ko amuñ jot. Mhm. amuñu jot day def kon sëñ Mamour jërëjëf. Mhm. waxtaanu Cheikh Ibrahima Fall bi leer na. sunu xol sedd na am nañ mbégte lool waaye internet yëpp seen xol sedd na. ñëpp ngi réagir ci commentaire yi am mbégte. daanaka boo gisee ma di la teewlu sax ndax ñoom ñëpp dañuy bëgg. ñëpp maase di la déglu ndax. am nga gan goo xam ni loo am ci moom du doy. waaye léegi bu doon jël ñaari doomi maam Cheikh Ibrahima nga baaxee ni ko. ma tànn nag sëñ Moussa Fall. ak sëñ Abdou Sakkoor Fall. ñaar ñooñu daal laa bëgg nga baaxee ko mboolem internet ñu doog a dugg nag sa taxawaay yow mi nga xam ne nag yaay sama invité sa taxawaay ci ndogu yi. ndax ku ne xam na taxawaay bi nga ci am. ak pas-pas bi nga ci am waaye ñaari doomi Cheikh Rafal daal sëñ Moussa Fall ak sëñ Abdou Sakkoor nag damaa tàmbalee taaw ba ak ca caat ba rek ñu baale ñu ci des. waaw. saa xidmatin lil Moustapha Abdou Sakkoor. waaw waaw man ci samay xasida la bokk. ndeysaan. Cheikh Ibrahima tax sax mu bëgg ko man. ndeysaan naa xam. xam nga sëñ Modou Moustapha Fall moom 57 ans la dund moom. ndeysaan. parce que 1893 la gane jamono. 1950 mm-hmm. la fi jógee. Mm-hmm. moom 57 ans la dund. 1893 la a jamono. Mm-hmm. waaye nekk na fekk baayam nag. taxawu baayam lool. Baye Basirou Mbaye nee na. sëñ sëñ sëñ. suñu xalifa njaarim suñu xalifa suñu xalifa Fall Maajoor maa ngi koy maa ngi ñaan suñu borom yokk ay leeram nee na ma bàyyi Basiru Mbay moo ma ne naan naa attaaye ju sëñ Tubaa xel ci loxol boppam jox ko sëñ Muru Musaa Fall mu naan na bu kaas ba bàyyi Basiru Mbay mm-hmm. dañuy dañuy bàyyi Isaa Mbaye mm-hmm. ak ku ñuy wax Mudu Mbay Isaa ak Seex Mbay Kange ñoo bokk bàyyi Isaa Mbay liñ jur ca Thiès bàyyi Basiru Mbay nee na mm-hmm. ànd na ma sëñ Muru Musaa ñu wër réew mi indil addiya koroog maay téye dàllam ak kaalam mu nuy bàyyam Seex Ibra Fall bi ne ko jàpp daf ko ne lii lu mënu ko àddiyee mu banque loxoom ne ko ne ko demul ko sëñ Bamba mooy sa sëriñ di sama sëriñ ndeysaan déglu bu baax mm-hmm. dara jëy sëñ Moussa Fall lay wax waaw sëñ Cheikh Ibra daf ko ne ñu tal addi sëñ Bamba mooy sa sama sëriñ di sa sëriñ yow ndeysaan noonu du lekk sa addiya ne ko na waaye Moustapha saam ak saam tabaski na yow la war ndeysaan waaye addiya moom dama di ko sëñ Bamba mooy sa sëriñ di sama sëriñ ndeysaan sëñ bi nee na sëñ Touba mas na ko ne Moussa Fall xalaa xamoon ne bu du woon ak mën a sa baay ngay xul bu saman Eh, sëñ Modou Ab sëñ sëñ Modou Ablaye ñu ko nettali xaw la sëñ Talla Ñang Baye Talla Ñang moom si Moussa ko la ma ko wax te danaa la wax leen na mhm. sëñ Modou Moustapha Fall mhm. cinquante sept ans yi mu mhm. ki xamul soo koy waxtaanee ci wetam da ngay def ne téeméer at lu topp la dund ndax pëstéefam pëstéefam keroog ba mu génnee àddina mhm. sëñ Fallou ko tiim mhm. fat ko ca wana wa mhm. jël parfum di ko sotti di wër di ko wër naan Moustapha Fall jàmbar ja wàcc na Moustapha Fall jàmbar ja wàcc na Moustapha Fall jàmbar ja wàcc na am na ñu am journal yi Paris Dakar ci jamono booba journal yi daa génn Paris Dakar lañ bind mooy sëñ Mour Moustapha Fall wàcc na liggéey sëñ Fallou jaaxle na kooku jàmbaar la woon jàmbaar la du Cheikh Modou Moustapha hmm. kenn du moom kenn du moom moo tax pëssef bak pas-pas bak mhm. njambar ga jaayante nga nekkon ci mom mhm. tay bo xolé seigne Cheikh Fall jëmm mi lépp ngay gis lepp ngay gis bo xolé seigne Mor Aminta Fall mu jeex tak ci moom nga xool sëñ Cheikh Fall baye gor ndaysan nga xol seigne Cheikh Fall khadige mhm. mbolam ko seigne Moussa Fall am neko jak neko jak ko mu ngi ni ndaama laa ngoog ndeysaan ndaama laa ngi ni ndaama laa ngi ni ndaysaw ndaw so ngoral jako dal Cheikh Fall ko waxoon hee doom ah ñaari doom as suley ndaw soo ngóoral doom waaw muy sërif ak Cheikh Moussa Fall ndaysan moo tax njàmbaaru suñ Modou Moussa Fall moom ak pëseefam. Mhm. xaju jotaay bu xaju jotaay bi waaw. léegi nag Seydou Sakkour Fall. Oh. danaa ko doon danaa ko doon ba xëy doon ko. ndeysaan waaw Seydou Sakkour. koor Mbekken Xandi moo ma ne. garab bu la sol nii ca mhm. dama bëgg ngeen bàkk ma. tey nee na gars yi teg ndënd yi. Mhm. ñu ne ko nuñ lay bàkk mun da ngeen naa ñëw mënu ci daqaar dara lu mu gësam gësam baax. ñay mënul ci dakar dara lu mu gëssam mungkin ba mu génn sol garam bobu na mbay ma ko faal mu ñaata ma fi mak mu ko xamna naa ak yu la mag ah, ku teema ci lalu serafal bo bu bu ko mané nako def abdou sakour doonu serafal da ko doon abdou sakour doonu serafal da ko doon da ko kan na ma hmm sama bay mudu kan hmm moo ma wax ne ma Cheikh Rafal Fall ko wax fa njaarim ne ko mudu kan duyoli mu ko Fall mu ko kan duyoli mu ko mu ñetti yoon mu ko maa ngi dem kat waaye dinaa delsi waaye kër bu ma dese Abdou Sakor lay doon tey waaw Abdou Sakor nag 1908 jàpp 1909 la gane jamono ca Thiès te yaay dem Sarr ay ndeyam bañ béykat xam ni moo ma ne. Mhm. soxna Debbo Sarr bi ñëwee fi loxol Cheikh Rafal. Mhm. ab di am abdir diir. Mhm. yàlla mooy ko takk ndeer. Cheikh Ibra yónnee ci sëñ bi. ne na si dafa bëggoon soxna si ñu ñaanal ko. Mm-hmm. sëñ bi bind ab téere. ñu mm-hmm. takkal ko soxna Debbo Sall. 1908 am ñu ne 1909 sëñ Abdou Sagoor Fall gën a jamono Thiès. Mm-hmm. sëñ Cheikh Ibrahima Fall yónnee ci ku baax ki laaj aw sëñ Tuubaa ne nañ tekki téere ba tur waa nga ca. Abdou Sagoor da ko indaale waaw da ko indaale. tey daa indaale aw turam. daa indaale turam. moo tax mu daa ah, danaa ko doon danaa ko doon ba xëy doon ko nee na man Abdou Sagoor. sant Thiam indiwuma ci mbaar mi. damaa mën illéer damaa mën illiir waaw sant Thiam indiwuma ci indiwuma ci mbaar mi ndeysaan damaa man illiir bàyyi si am di Moussa waaw daane doonuma Seera Faal man Abdou Sakko dama koo doon tey doonuma ko man dama koo doon moo tax sëñ Mor Ndiaye tomb del mhm. sëñ Mor Ndiaye dànk ñoom mhm. Baye Modou Mangara ñoo xam sëñ Abdou Sakko ndax Baye Mor mhm. dee na dekki tey dee na dekki dekki ma wax loolu garaw Baye Mor Ndiaye tomb del waaw dee na dekki Baye ma ne wàcc na liggéey. Mhm. maag sëñ Maxtaar Jaw ba ndoggale ko ba teg ko ci kaw lal. def ndox dara jàllut te boobu ko faatu rek lañ xam ñu xam ne kii dem na. ndeysaan ci timis gi. Mhm. nekkate bi sëñ Abdou Sakor demee. Mhm. te moom yëgagu ko sax moom. waxaguñ ko dara de. ci saayir sëñ Abdou Sakor dafa dem ci guddi gi Baye Mor dem. ndeysaan nee na ci fajar gi Baye Malick nee ma ne ma Malick. ma ne Mbacke ma ne ma jox ma sama yére ma sol. ndeysaan Baye Mor dellusiwaat. Mm-hmm. mais bi ma ko joxee yére mu sol mm-hmm. daal di dem ca bis ba ca mm-hmm. xew-xew ba ñëw daan na xanaa li ma def xaw na leen a jaaxal ñu ne waaw mun a seerafaale fi ñëw ci timis démb ne ma moor ma ne ko faar mu ne ma gunge ma Abdou Sakho dañuy bàjjana nee ma ko gunge ba mu yàgg seerafaal na ma dëppal dellu doon ndax gunge yegg baaxu ca moo tax ma delsi tey bàyyi tomb kooku moom leneen la moom. la mu ne su ko waxtaanee fii mu ne ko waxtaanee fii te daana def. Mhm. di tarbiye Cheikh Ibra Fall. Mhm. booba Cheikh Ibra ngi fi. Mhm. beral sa yëpp sa ko tool bu am guddi la ko daa bàyyee. Mor Ndiaye tomb dee ba ba dugg ca teerub gébb Fall ba na day wutal Seera Fall ndox. saa am Cheikh tiim ko. teen ba sori loolu mun naa Mor Ndiaye génnal mo ko da nga ne ci biti soxlam ndox ma ne ci biir soxlaalam ndox duma genté mom ndox tay Cheikh Fall wul wël bit teuf mhm. sanni bay Mor bay Mor mhm. daw jël tok gaa tegal ko Cheikh Fall loxoñ bubbee ya toy mhm. dal Cheikh Ibra muna ah, ki kan la ci féré yi mané ko manam Mor ndjay cheikh ibra dama ya dugon ci teen tanduk ay goj né mu ko waaw ma ya gennat te kenn yoru lay goj mu ko waaw hé hé dom bi nga xëy ci man sa maqama ci sama borom ci ñent la tollu ñent moy quatre waye bi nga duggé ci teen ba gën dom tomb na sag dell xëyee ñeenti gonto juroom ñaat téeméer ah loolu nag dama koy bàyyi sëñ Mouhamed Samb soldar soldar sëñ Touba waaw soldar waaw Mouhamed Samb soldar waaw sa soppe sa xarit waaw démb rek yéeg na ni ma laa war a dalal mu bég ni ma yaa ngi dalal koo xam ni hmm. Cheikh Rahim Fall jekk na ko te lu mu ci wax lu wér la ku baax la loolu Mouhamed Samb séddee na la ko démb moom bàyyam ak sama maam Cheikh Ndaw waaw dañu woon doon benn. doon benn bàyyi Mourou Mbaye Samb. waaw ba muy nekk kaw pompier Kaolack. Kaolack la ko Baye Cheikh daan seet si. ndeysaan loolu noonu ma ko daan seqal Baye Cheikh ndaw mu may dégg. nga xam ne loolu kon nag kóllëre googu sëñ Mouhamed Samb. ndeysaan féddali ko ci sëñ. moo tax nag seen waajur benn la woon. moo tax nag bi ma léegi nag tomb dee nga laa lay moom mm-hmm. xam nañ ak ñiy seetaan xam nañ ne. Mhm. del 4 mhm. la. nga tomb ko muy 700. 700 kon tombu del gaa ngi noonu. mooy Cheikh Ibra Fall ko jëlee ci maqaamam 4. 4 yóbbu ko ci maqaamam 700. xam nga del 4 la nga tomb ko muy 700. muy 700 ci man borom. ci ñeent la toll. ñeent la toll del. waaye bi nga duggee ci teen bëggeen doom tomb naa sax del. tomb naa sax del yàlla na Cheikh Ibra Fall tomb suñu del waay. waaye amiin waay ci barke Serigne Touba <laughs> jërëjëf Serigne Mamour. sunu xol seet na baax waxtaan wi internet yi. Mhm. Baye Fall yaay faali xolu yoonu murit ñëpp sedd nañ pam mhm. ngañ kilifa kër gi xam naa ni daanu na fa mu nekk mhm. waaw Souleymane Abdou Khadr gaa yi nga xam ne ay baay Fall lan Abdou Khadr rek léegi mu naa ma ñaanal waxal sëñ Mamour ndeysaan ma ñaanal ma doon murit saadix Abdou Khadr loolu la moo yóbbante nga xam ne bi nga duggsee ci studio bi xolu ñëpp sedd na mhm. waaye yow ku ne xam na Cheikh Fall dafa seexal sa maam gërëm ko loolu ko ne xam na ko léegi nag yow nga dib sëtam ku ne gis nag taxawaay bi nga am ci ndogg yi. loolu nag dañuy damay jàkkaarloo yow sëñ Mamour. mi nga xam ne nag sëñ Tuba Cheikh Rafa la defar maamam. taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci ndogg yi. ak soññee gi nga ci soññee ak bu weer koor jotee nga xam da ngay miiraas sa bopp. yàq loo am. ak lépp lu la soppe yi xarit di jox. nga ànd ko ñoom dem di ko yóbbu ca njaarim di nga ànd ak sa kilifa di ko jox ki fi nekkal sëñ Tuba. foofee bëgg naa ñu waxtaan ci sëñ Mamour ndax loolu sa taxawaay bi nga am. ba yoonu murit yëpp nangu ni. koor gi moom bu jotee amatoo benn itte ndax budul koor sax amoo benn te budul Cheikh Rafal waaye rawatina koor gi moom ni ko sëñ Tuubaa sant Cheikh Rafal day yokk ci sa jëmm loolu bëgg naa ñu waxtaanee ko ndax loolu internet du soxla nañ ko. waaw xam nga euh, sëñ Abdou Lahad. waaw nag wax sax wax ci sa mbir bopp. du yomb moom day yéeme waaye nag nga mm. dimbalu ñu ci rek waaw. xam nga man koy benn kàddu rek laa la ciy wax. mooy man bu Cheikh Ibrahima amutoon du ma am. dëgg la. man mhm. ba ma yàlla sàkk Cheikh Ibra tax daal wallaay dëgg la loolu daa bëgg àddina xam ko wallaay ndeysaan moo tax fi bu kenn gis ci man ci mhm. sama diggante Cheikh Ibra ndeysaan lu la jaaxal ndeysaan ndax da ngay xam ne mhm. man pour Cheikh Ibra laa daal duma pour keneen ndeysaan loolu la yàlla dogal loolu la yàlla dogal man pour Cheikh Ibra laa wallaahi dëgg la man xawma kenn fi ne Cheikh Ibra rek laa Cheikh Ibra rek nga xam wallaahi dëgg la ndeysaan waaw lijjantiwuma kenn ku dut ku lijjanti Cheikh Ibra wallaahi dëgg la kepp waaw lii firnde na ko waaw léegi nag moo tax mhm. liggéey Cheikh Ibra Fall mhm. bu mu a nekk ci kaw suuf mhm. xam nga ca ndog yi lañ ne waaye luy sànceeb Cheikh Ibra wala luy Cheikh Ibra jëf jëf lu ne soo xoolee gis ma ca dëgg maa ngi man di teew dëgg la feeg maa ngi fii ne di teew dëgg la tey lu jëm ci wàllu communication wala lu koy yaatal wala lu koy jottali loolu yàlla dogal na it suñu loxo la ko suñu borom teg wallaahi dëgg loolu la yàlla def dëgg la ndax li tax mooy waaji lañ faral waaw waaw ndax kuñ ne samaam gaynde la mhm. boo ragalee war ngaa fexe ba say bët xonq <laughs> nga ni kuñ ne samaam gaynde la woon waaw boo doon tàppet waaw war ngaa fexe ba ba say bët xonq ba say bët xonq man bàyyi seex kat lu mu am seex ba nee naa ko ko may dëgg la te kat daraan taxaw ci ci ci marché yi mhm. ak ci gaar yi di takk mhm. ay rojom di wax ngir ñu xam Cheikh Ibra hmm. nit ñi di ko jox seen alal hmm. mu koy jox Cheikh Ibra Fall fexe na ba ñim dajeel jamono ñëpp jox nañ seen alal Cheikh Ibra Fall bàyyi Cheikh par ñaar ak par juróom ak par weccet ku masaan dajeek moom loo ko masaan jox ci àddina hmm. mu faj sa soxla léegi nag loolu bu demaan ba daan takki rajo tey ñu woola ci télévision yi boo taxawee na Cheikh Ibra Fall ni àddina bi dina dégg man fi ne xanaa xamoon jàpp naa ne yéen yéen waa média man loolu laa jàpp de. sa jëf ji wane na ko. de man damaa ah. jàpp ne fii la yéen séqule nag man pay. man payoor gi ci man. Mhm. ndax li tax mooy. Mhm. ku amul lu lenn laa la wax. Mhm. Cheikh Ibrahima nee na def ko ci barab mbaa ngi digg ko ci barab. boo fa diggee yuux kenn warul la faa jiitu. kenn warul la faa jiitu loolu invitation yëpp loolu ma fa yóbbu. dëgg la man damaa jàpp ne su ma waxtaanee pare man maa war a fay. Oh, oh, oh, xam nga. te fu xuma la fii ci Sénégal mais man bitim réew nit déplacé na ma Europe fii. koo xam ma jëmu ji nu mel. barke Sëñ Tuubaa waaye Cheikh Ibrahima tax mu woolu ma. ndeysaan ma déplacé fii dem bi may jël ci gaar bi laa door xam xam mooy ñett ñi ànd xaw ma kan moo fi indi. <laughs> fii ba bitim réew xanaa loolu gën a garaaw. ci Sénégal ndeysaan bi ma wàccee ci gaar bi laa ci train bi mu may jël si ma jëlee avion ba wàcc. Mhm. ñëw jël train ba egsi. Mhm. ñoom ñett ñi may jël si mënu ma leen a kii ma fi indi jëmm ji. diggante Sénégal ba foofu. ba foofu kon dafay mel ne. Mhm. ba Europe laa la wax de kon oh. man pour Cheikh la laa daal. léegi nag loo loolu moo waral nag. te nag li ma ci sant sa borom mooy lu ma la nettali. Mhm. ku Cheikh Ibra yar mbaa ku Cheikh Ibra yar bàyyi mu ko wax xanaa kay lu ñuy bañ a wax ci plateau lu ñu bañ a wax ci plateau ndax jamono moom dafa doy waar mhm. neexut a waxtaanee ndax dégg-dégg yi am problème te Cheikh bi neexut a xam dëgg la loolu rek mooy mbir mi mhm. waaye nag waaye nag lu mën a xew daal mooy man pour Cheikh Ibra laa moom ndeysaan faraluma kenn nag Cheikh Ibra laa faral ndeysaan sama yitte it sasuma ko ku yàlla bind Cheikh Ibra laa ko sas dëgg la yàkkamtuwuma dara it Cheikh Ibra laay xaar wallaahi dëgg la man daal gëm naa ne ku man ci Cheikh Ibra Fall dara danga nga man ci man dara moom loolu dëgg la waaye Cheikh Ibra ñorul mhm. ñaat dërëm doo ko man ci man dëgg la ñun nag Cheikh Ibra Fall ñor nañu moo tax mën nañ ci yow lu ne commentaire rek am na murit yu ne ma seen addiya hmm. dañ koo bëgg a joxe ci ndogu yi hmm. te buñ sañoo nit ci yow la ko suñu borom di jaarale mhm. ndax gis nañ taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci ndogu yi rawatina am nga ko ci biir kër maam Cheikh Rahima Fall mhm. numéro bi nag suñ ci amee seen digal boo nu ko joxee ndax ñu ngi koy laaj ci commentaire yi wax dëgg yàlla ak ko sàkku te ñoom ndog yi xam nañ lu waaye teg sa loxo Cheikh Rahima jot ndax mooy seen Cheikh Jëmm ni nga ko waxee mhm. nga xam ne doy wax sànq ni Baye Fall daal mel ku bëgg a jot sëñ Mamour Ndaw mi nga xam ni tey moom nañ dalal ci émission spéciale maam Cheikh Rahima Fall gi boo wootee 813 62 01 moy numéro 813 62 01 numéro bi am Orange Money. Mm. numéro bi amna képp ko xamanteni ba nga jokk ak Serigne Mamour Ndaw ci 77 813 62 01 ndax fini ni Baye fali ak Yaay ak koor wi nu ne. sédal nga dans le sédal nga xolu ñëpp barke quest Touba képp kuy déglu spécialement Cheikh rafal gi xolam kon Baye Fall yi képp ku leen bégal nag ñun ñoo war a wàññeekuwaat bégalaat la ngir jëm Serigne Touba bégalaat la ngir jëm Mame Cheikh Ibrahima Fall kon Serigne Mamour Ndaw numéro ma nga noonu 77 813 62 01 waaw Yaxya yow mi naan ma naa ko bamtuwaat bamtuwaat naa ko 77 813 62 01 képp ko bëgg a jokkoo ak sëñ Mamour Ndaw incha allah da nga moom lépp loo am yéene bëgg koo joxe ci ndog yi incha allah da nga ko ci joxe sëñ Xaadim Lo mu sëriñ Basiru Lo Ali Aram ma nga foofee nga xam ne mooy Touba di sëtu sëriñ Baara mu sëriñ Touba mhm. mi ngi teew lu émission bi nee waxtaan wi tegu na ci xam-xam waxtaan wi am na yar moom góor yàlla góor yàlla te mooy baayam mhm. te it nee na waxtaan wi tegu na ci xam-xam sëñ Abdou Lahad Mbay mhm. jànkatu xasaayit nekk ci Tëngéej moom hmm. it nee na waxtaan wi am na solo Yaxya Awin mi ngi woote hmm. Cheikh Maysa Gueye mu ah, Cheikh Maysa moom it mi ngi wane cofeelam ak mbégam ci yow hmm. macha ci yow mbooleem Baye Fall yi ku lim am koo bàyyi kenn ku ne ngi wane mbégteem ci yow sëñ Mamour kon sa kàddu gu mujj rek ginnaaw bu nu santee nag mbokk jullit yi ak mbokk taalibe yi rawatina nag jiital ci kilifa kër gi ni ma ko waxee saa su ne lii ci kor gi gis ngeen day am ñett yoon ci ci semaine bi baa ñaari yoon ci semaine bi ñuy waxtaane seen Cheikh rafaal waxtaanee mag ñu baax ñi ak diine ak lislaam loolu nag du Abdou Lahad Aw ndax Abdou Lahad Aw ab simple employé kese la fi waaye nag ñoom ñi nga xam ne ñuy borom télé bi ak kilifa yi ne ci télé bi ñi dénk leen ko hmm. li ko talee ci Souleymane ak ñi ma ànd liggéey yëpp Sebdou Khadre sama jëwriñ yooyu Abdourahmane hmm. hmm. ah bisu mën a ci rési ba ah ñoom ñëpp kenn ku ne taxawaay boobu nga am ci groupe bi mooy jël koor gi jox ko lislaam jël koor gi jox ko mag ñu baax ñi loolu it ñu ngi ci sant mboolem kilifa yi nga xam ñu ngi ne Sénégal 7 TV hmm. sëñ Mamour kon kàddu gu mujj gi tubarkal alhamdulilah jërëjëf euh, Cheikh Abdoul Ahad sant nañ bu baax di sant sëñ Moustapha Saw hmm. sëñ Moustapha am sëñ Saliou Saw sama xarit daal di jàmbaar lool te moo jàppandalit waaw bi ma waxee na ma hmm. dama bëgg nga dem fële bi ma waxee na ma sëñ Moustapha moo nu boole euh, ma dama ne la kay ok bisu mi ngi noonu numéro baa ngi affiché sax noonu numéro sëñ Mamour Ndaw bi sànq bisu indi na ko mi ngi affiché noonu mm, mm, mm. képp ko bëgg a gis numéro sëñ Mamour Ndaw mi ngi noonu di affiché noonu 77 813 62 01 mi ngi wax jërëjëf bisu yàlla na yàlla fay waa kay sant nañ bu baax a baax di leen jaajëfal di ñaan suñu borom mm-hmm. Cheikh Ibrahima Fall mii nga xam ne tey mm-hmm. moom ngeen wooteel jotaay bi mm-hmm. yàlla na leen taxawul boppam amin te gëm naa ne nag lépp dana baax alhamdulilah maam la te waxtu wii nag dafa waxoon dolliku waaw Cheikh Ibra Fall nee na weeru koor la sama sañ-sañ di ñëw moo tax lu ci waaye jëflanteeg Cheikh Ibra Fall moom yaa koy gisal sa bopp mhm. moom amul xaar dëgg la te Cheikh Ibra moom ko buy dal muy dal la ndax moom mbiram da koo jege ndax daa ku ñaan ñàkk boo jëndee am te moom daa jënd waaw su ko defee nag kon ñu ngi ñaan suñu borom mu dool leen a taxaw bu baax kàtt mhm. na leen ba li ngeen bëgg mhm. ngeen am ko télé bi itam ni ngeen ko bëgg ngeen amee ko ni mu lool ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf sëriñ Mamour mu ngi noonu kàddu yi rafet na yàlla yàlla guddal soo fan mhm. nuyu mbooleem majmuhatu muhaadirin muy kuréelu waxtaankat sëriñ Touba yi mhm. la ko dalee ci Jibril Sène sëriñ Saliou Seck alxuraan mi yor kàddu mbooloo ma sëriñ Moussa Saliou Sow mi nga xam ni moo jàppandal sa teewaay ci jotaay bi sëriñ Moussa Saliou Sow mhm. yaa xam ak bëgg sa bëgg yàlla na la ko sëriñ Touba defal barki démb rek grand plateau Sen TV sëriñ Moussa Saliou Sow bégal nga yoonu murit yépp ci waxtaanu am solo ak xam-xam bi yàlla yàlla barkeel la mbooleem waxtaankat sëriñ Touba yi Seydou Abdoulaye Diop Bichri yàlla yàlla guddal soo fan wéra sa moom it taxawaay bi nga xam ne am na ko ci suñu jëmm saa bu ñu ko soxlaa Sénégal 7 TV mu bàyyi itam dikk moom yal na yàlla barke leen mbooleem képp kuy waxtaani sëñ Tuubaa yal na yàlla sàmm la aar la te dàq la fu yàq agut di leen yëgal ni insha allahu rabbi bu ndogoo ba noppi di leen ñëw def édition spéciale Cheikh Seydi Hadji Malick Sy ñu invité Ousmane Mbaye bu Alhaaji Mbaye doon de mbay ak ki nga xamante ni mooy Oustaz Ahmed Ndiaye mi nga xam ni Tiwaawan lañu jóge ñu war a waxtaane tey spécial Seydi Hadji Malick bu ndogoo ba noppi Sénégal 7 TV wa ma zalika allahi bi aziz assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu yal na mucc ci mu dog te forub dog amiin waay sëñ Tuubaa